jërë ngeen jëf mbokk na yu Télé Sénégal ñu baax a baax di leen ziar am mbégte kontaan bu baax a baax. xam ngeen ko comme ni ñu am habitude di ko defee à chaque fois lépp li nga xam ni moom moo doon actualité si Sénégal si rawatina si wàllu politique il faut que génn si mbedd mi tàll ñi nga xam ne nii ñooy doomu Sénégal nekk ay citoyen nekk ay patriote ñu xam na leen gisee maanaam actualité fu mu toll nii si Sénégal xam ngeen ko gannaaw démb fële si assemblée nationale gannaaw bañ demee di voter pour euh, maanaam dàq élection yi ba le 15 décembre incha allah rabi mu doon li nga xam ne nii euh, Sénégal yu bëri peut-être euh, d'accord d'accord si xam ni d'accord na si les avis sont partagés tey nag xam ngeen ñu ngi fii euh, si Walfadjri gannaaw démb li nga xam ne lu métti la li nga xam ne nii euh, dal na leen ba ñuy daal di si li nga xam ne nii ba daal di sax définitivement mu doon li nga xam ne nii lu métti la bokk mbokk internet yi dañuy jël suñu euh, caméra ak sunu micro tàllal population bi lan lañ gisee demb li nga xam ne nii dàq bi ñu dàq lii de élection bi nga xam ne nii moo noonu am le 25 bi février bi alors ñu yóbbu ko ba le 15 décembre incha allah rabi. Bon, c'est une situation désastreuse que personne n'y attendait. Et je croyais que Sénégal ñu dem ba egg foofu parce que lii dafa suufeel suñu démocratie de mon point de vue te am naa droit wax sama point de vue am naa droit wax ni ma ko gisee te it di dugal ay gendarme biir assemblée nationale ñuy génne ay député te député yooyu fa nekk ñun ñoo leen fa teg ñun lañ fa toogal kon man gisuma woon utilité gendarmerie dugg biir assemblée di génne ay député pour euh, adopter projet de loi boo xam ne nii dañ koy dañ koy def sa sans sans sans sans consensus ñëpp ànd ci wala au moins ñu def ko vote bu ñu defee vote là au moins nit ñi mun nañ mën a comprendre. si situation bi nga xam ni dem moo xaw fële si assemblée nationale ba président jël dogal daal di dàq yi ba 15 décembre incha waaw ñun de lépp loo xamante ni Macky Sall ko def moom fii ci Sénégal mënuñu bett ndax li tax bu ñu xamee Macky Sall fi mu commencé woon ak ñun ba fii ñuy yegsi lépp lu mu defati ñun mënuñu bett maanaam bi mu de bi mu déparé ak ñun ba léegi jalgati loi la nekk xam nga dëkk moom bu fekkee tegatul ci loi lu nekk mun na am waaw foofu lañ ko teg maanaam dafa nekk nguur boo xamante ni maanaam mbiram tegatuñ ko ci loi loo xamante ne tegatuñ ko ci loi ak droit bis bu nekk na lu nekk mën na moo tax dara bettul kon da ngaa bokk fu mu toll si jàpp ne peut être Macky Sall na déroulé ba bu ko waaw instant bi moom ça dépend ci peuple bi Macky Sall moom léegi man jàppatuma sax président buur laa jàpp ne moom la bëgg a incarner Sénégal quoi na ren quoi roi nga xamante ne day continuer nekk fii Sénégal ba saa bu ko neexe parce que tey fii ñu taxaw nii defe naa ñu ngi buntu Walfadjri am na lu ñu Siri Lamine Niass waxoon te wax yu wàllu yàlla la boo xamante ni jàpp naa ne waxam dara mënu ko dindi waxagul ñu luñ gisul te am na lu mu ñu waxoon yow déggoon nga ko xamoon nga ko man déggoon naa ko xamoon naa ko te ba tey yoon bi wàccaguñu ko. moo tax ñuy tegaat vidéo bi waaw man nag loolu laa gëm ba bis yàlla tey bii dama gëm na rek moom doog ba doyal wàcc wala ñu jaamaarloo ak moom jëlee ko fi. noonu na toog ba doyal wàcc wala ñu jaamaarloo ak moom jëlee ko ñun nag ñooy xool ndax dañ koy bàyyi mu toog ba doyal wàcc wala suwaat naka la ñuy def. alors loo gis ñuy wax ñi nga xam ne ñooy wax naan fu mu toll nii politiciens yi ñëpp a parce que am na ñu nga xam ne ni nekk na ci opposition bi maanaam dàq bu ñu dàq élection en général moo tax fu mu toll nii déggoo kenn wax. non ñooñu ay dileer lañ duñu opposition euh, duñu opposition fii benn opposition moo fi am bu tax ñu naan opposition Ousmane Sonko la mais ñu ci bëri ay dileer lañ day day day day neex rek ñu nekk ca bu méttee ñi dem seeti feneen euh, tey jii nii mun naa jël exemple ñu mel ni PDS PDS dañoo dee woon dañ leen fàtte woon sax xanaa tur bi doo nga fi desoon mais PDS dundatu noonu bu PDS di ñëwaat tey ba yegg si fii nii euh, Yewwi coalition Yewwi ak Wallu moo delloosiwaat PDS ba mu dekkee tey bi mu dekkee ñoom ñoo taxawaat porté waat euh, combat bi PDS ay ay ay warkat lañ quoi ah. waaw. alors yaa ngi wax léegi naan Ousmane Sonko rek moo si bokkul mais tamit euh, dàq ñu dàq élection yi d'une partie xaw na arrangé kii Ousmane Sonko parce que bu bokkulee ren deux mille vingt neuf man xalaatuma loolu. Macky Sall man li ma gëm ba ci biir ne moo tax mu dàq élection yi mooy candidature Ousmane Sonko bi jàll. Basirou Diomaye Faye bu ñu jàllale bokk na ci li gën a tax mu reporter élection yi parce que ñemewul ko te bëggul euh, lu bokk ci njaboot Ousmane Sonko donn ko wala Ousmane Sonko donn ko mais nag ku bañ sa ndono sa deyin ñaaw mu neex ko mu naqari ko incha allahu rabi Pastef a koy donn bu doxaloon affaire yi ba cinquante ans ci kanam sax beneen président bi fi nekk Pastef lay jóge loolu mënu si dara. garab la bi nga xamante ni saa boo daggee yeneen yeneen ren mooy ñëw te ceer yi ñëwaat moo ëpp doole yi fekkoon. Euh, loolu mooy Pastef. ñu ngi si buntu Walfadjri na nga gisee démb licence seen licence bi nga xam ne mu nekk lu gën a métti suñu xool dama tëj sama place bàyyi sama liggéey ngir ñëw masu Walfadjri su ma amoon doole boo xam ne wala pexe boo xamante ni tey su ma ko defee Walfadjri day continuer waat euh, di dekkaat Walfadjri ba mu nekkoon di continuer di tàkk euh, loolu lay def mais xëy na sama doole tolluwut foofu mais sëriñ bu sell Cheikh Mamadou Hadi Niass di am na kàddu gu mu dégg ma wax ne nag ku mënul dindi wal Walfadjri si xolu nit ñi mënoo koo mënoo tëj Walfadjri Walfadjri ci xol yi la nekk ci deret yi la nekk kon mënu ko dindi si xolu nit ñi mënu ko dindi ci deretu nit parce que te ñi ma àndal nii wal ñi ngi jógee ba marché tëj suñuy place bàyyi suñu lépp pour ñëw taxaw fii naqarlu li nga xamante ni moo xew biir Walfadjri kon moom mënul éliminer Walfadjri fekk mënul éliminer peuple Sénégal mënul éliminer Walfadjri na bàyyi xel loolu waaw du ci am ndam incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. Cheikh Ibrahima Mbodj alors nan nga ñu euh, loolu ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent yàlla salaa salaam di gërëm suñuy waay jur ñoom ñu ñu jur yar ñu dundal ñu bañ xam buñ gisee dëgg xam ko pour tonc si sa laaj liñ gis assemblée nationale du dara lu dul jaay doole lu ñaaw. nguur goo xam ne dem na ba jeexal xamatul lu muy def muy ñiññi loolu nag mooy li olof Njaay di wax ne baadoolo mooy jublu ndab ak gàcce lekk sa waa ji ñuy wax euh, Macky Sall man du wax président Macky Sall parce que man mosuma ko mosuma ko reconnaître comme président depuis ba mu sàcc élection yi en 2019 bokk si ñi nga xam ne reconnaître ñu ko waa ji nga xam ne nga xam ne mooy Macky la jaayatu na doole jikkoom la ab baadoola la. alors ñu bëri tim jàpp nañ ni fu mu toll nii opposition bi euh, ñoom ñoo ko digal lii parce que gis nañ waa waa wàllu Sénégal ñoom ci bokkoon na si ñu waxoon ne élection yi kat dañ ko war a poussaat. Euh, ñi bokk na si waa euh, foofu dama lay rectifier tuuti Sénégal benn opposition moo fi am benn opposant moo fi am muy le Pastef Ousmane Sonko ak waa këram. kon ñeneen ñu si des yëpp ay dealer lañ ñeneen ñi si yëpp ay marchandises lañ kon boo nee opposition bi dafay xaaw a am lum nuru parce que ku gis euh, maanaam li xew benn candidat bu ñu recalé nga ne damay nga ne euh, ay say nit ne maanaam bu bu diw demul élection du fi am loolu dafa fekk maanaam Macky Sall bëgg ko mu neex ko parce que gis nañ fi ñoo xam dañ leen rëkkale ñoom bañ ko demee seeti Macky Sall daf leen wax ne conseil constitutionnel lu mu wax maanaam kenn mësu dara moo yore le dernier mot kon dafa fekk moom mu neex ko maanaam mu ànd seeg ñoo xam ne nag ay doomu baayam lañ ndax ak loo loo mën a dégg rek njabootu Ablaye Wade la waaw bu fekkee comme Khalifa da ko jàppee comme opposant opposant boo xam ne bëccëg bi dafay wax bu guddee mu dem seet le président kooku ñu ñun mënuñ ko jàppee opposant kon en un benn opposant moo fi am muy Ousmane Sonko te Ousmane Sonko yàgg wax ak sénégalais yàgg na leen yee te tey foog naa Sénégal yëpp gis nañ lépp. alors est-ce que yaakaar nga ni fu mu toll nii conseil constitutionnel euh, peut-être mun na dàq maanaam li nga xam ne ni moom lañ jëlee assemblée nationale. waaw conseil constitutionnel moom man dama leen musulu wóolu donte jàllal nañu Bassirou Diomaye Faye mais dañ si mënu woon dara parce que il était dos au mur kon ñoom lépp luñ def du ma waaye maa ngi ñaan yàlla nag suñu bett ma ne rejeté nañu proposition de loi bi nga xam ne gars yi jàllale nañ ko démb bu boobaa moom dana ma bett maa ngi ñaan yàlla nag mbetteel googu waaye amul dara <laughs> amul dara lu ñu def waaw. Euh, ah, na ko. waaw foofu balaa ñuy dem damay damay fàttali Walfadjri foog na ab saar alxuraan la foofu la ko si di jëlee wal fajiri yeew na sa fajar kon gis nga wal fajiri ji Macky Sall mi nga xam ne moo digal ministre bi maanaam mu def lii wal fajiree moom ak juddoom moom ak ay we juróom moom parce que alxuraan la kon nag kuy jéem a tëj alxuraan yow sa sa sa dee nga acte maanaam loolu mënul jàll te du jàll waaye nag lii ñun waruñu woon bett li tax waruñu woon bett mooy eh, Macky Sall yàlla la njëkk fii danga may laaj maanaam fan la ko défier très bien xam nga yàlla dafa ne maanaam ku maanaam ku ma gëm bëggumaa topp toppal yonte yàlla saa salaam gëmal yonte yàlla saa salaam Macky Sall xor xormaa yonte yàlla saa salaam la njëkk a xotti donte mënu ko muy keroog Charlie Hebdo mooy chaine bu bon boobu maanaam bu nasax boobu doon jéem a def ay caricature si yonent bi keroog ba mu ko defee mu am ñu jóg mer dal si kaw chaîne booba Macky moo taalee fii suñu avion lakk suñu kérosène dem si tour Sénégal ne je suis Charlie je Charlie mooy lu Charlie man maay Charlie lu Charlie def ànd si lu mu wax ànd naa si te boobu Charles pourtant xormaa yonent bi lañ doon jéem a xëtt kon moom bokkul na sañu ko xëtt kon ku xëttu xormaa xormaa euh, yonent bi leneen loo def du bett du bett kenn kon moom yàlla la njëkk a défier kon bu defiyee peuple am ba léegi maanaam defoon na ko waaye nag waruñu woon bett moom moo fi voté woon sa carte d'identité ku voté sa carte d'identité kooku moom baax doole rek duñ mën a wax waaw